mais nag di nga gis fi ko xamante dafa ray nit wala mu def lu graw ñu doon coup d'état sax bañ jàpp ci 3 mois kenn mu a régler sen problème dal parce que nag da ngay ray nit sax da ngay tok ay ane doog la juger donc lu toll ne nga yoroon euh ñew am ay jëf yo def ñen ñi étiquette bi ñu yoron ay ministère lañ du n'importe quel juge mo leen mëna a woo dañu am privilège de juridiction juridiction donc ñooñu pour ñu topp leen tam jaar yoon nga bañ cee dugal yàkkam bañ cee dugal daay doole bañ cee dugal caaxaan bañ cee dugal fayu ah vraiment dina jël temps loolu nag il faut moom ñu xam ko fekkee nag dañoo bëgg a teg nee yoon di def ay vengeance ay xeexoo ay xëccoo ay yaa defoon yi dama lay def li kooku nag loolu amul temps comme neex def ko suba mais nag bu fekkente ne dañ ko bëgg teg ci li loi wax ak kooku nag amul kenn ku war a sax di soññi juge ay gars yaa ngi nii dox seen soxlaat nangam nag man yooyu moom vraiment jàpp naa ne jàpp naa ne daal jëru ko daal waaw li mu wër man am naa confiance ci justice bi am naa confiance ci suñu dirigeant fa donc kon suñu leen bàyyee rek yaakaaruma ne ya, kenn kan dina sàcc alal réew ñu la ngay dox wala nga faat ay bakkanu Sénégalais ba noppi ñu bàyyi la ngay dox léegi nak euh, question bi ñu dugg ci benen parti bi rek moy ëllëgu Sénégal ëllëgu Sénégal ñëpp xam nañ ne mbiram assemblée nationale ci la bokk euh, léegi nag euh, xam nañ né président déjà conseil économique social dissout na leen bërki démb ñu bari nak bëggun mu doxale noonu léegi wala bëggun ñi fi toog tey doxalee noonu pour yow est-ce que jaaduwut est-ce que yoon la wala du yoon assemblée nationale bi ñu jóg ci pour defaat benen vote bu bees pour ñu ñeneen ñu mëna représenter Sénégal. waaw xam nga conseil économique social nag kenn dissoudre ko parce que dañu ko bëggoon a dissoudre ensemble bi bañ parce que loolu décret bu ko def loi la bu nekk boo xam ne maanaam da ngay delluwaat ci euh, ensemble bi ñu dindi ko parce que foofu lañ ko defaree woon nekkul woon ab décret moo leen fa teg donc bëggee teggi ñu bañ mais ay ay seen mbokki député bañ mais xam nga institution boobu. loi moo ko fa teg mais ki koy jiite nag maanaam décret ko fa teg ki koy jiite nag moom bindal nañ ko décret wàccee ko muy Abdoulaye Daouda Diallo bindal décret Aminata Mbengue Ndiaye wàccee ko léegi foofu li ñu ci am solo rek mooy message la boo xam ne dafa war a jëm ci bépp sénégalais jëm ci patriote mooy euh, gis nga jomaay amagul pouvoir mën naa wax ne moitié pouvoir la yokk ñu mel ne benn match rek nga dugal 2-0 après ñu mi-temps deuxième mi-temps bi sax am na nu muy demee match bi nga perte ko te yaa gagné woon premier mi bi mooy lan laa bëgg a wax mooy que ne ñun jomaay dañ ko jox xaaju pouvoir fi mu nekk nii bu ñu demoon assemblée nationale tey APR gagné ko amul lenn loo xamante ne jomaay mën na ko defati ci réew lenn la man mooy toog di xoole bu mën a liggéey donc léegi nag ñun ñi nga xam ne dañu doon xeex dem kaso ñenn ñi dee ñenn ñi sonn ci lu nekk ñu jël jomaay teg ko ci palais bi ba noppi du ko seetaan ba du am maanaam majorité assemblée nationale boo xam ne dina ko mën a def loo bëgg di def dindi li mu bëgg di dindi ca réew moom jàpp naa ne fal boobu dafa am lu dafa amul sens dafa am lu des kon ñun bi ñu defoon ba jëlee fi Macky Sall effort bu tolaat noonu lañ soxla pour que ñu am majorité assemblée nationale effort boobu nag jàpp naa ne bu fekkee am na garab la reen yi fii la nekk mooy bitim réew kon man yéen ñii lay soññ ngeen rassemblé wu bi ngeen rassemblé woon xam ne dara xewam il faut ñu xeex continuer fekkee ñun defar Sénégal moo taxoon ñu jóg amaguñ moyens yi outil defar Sénégal amaguñ yoruñu parce que tey Macky Sall dafa téye ensemble bi Ousmane Sonko téye pare bi kon ñoom ñaar dañoo séddoo dëkk ba pour nag ñu xam ne Ousmane ko falu na dañuy jël ensemble bi jox ko ko nga xam ne Macky Sall dootu amati dara ca dëkk ba su boobaa ñu bëggee doxal dëkk bi dina dox mais réew moo xam ne Macky Sall dafa am fu mu téye jomaay am fu mu téye réew moomu mënul dox loolu nag li koy dindi leen kese la mooy li fi jëlee Macky Sall rek. suñ ko bàyyiwul dinañ fi jëlee ñëpp ba pare liggéey réew jërëjëf rek euh, di la wax tey ndénkaane boobu ndénkaane booy dénk euh, sénégalais bi nekk diaspora bi entre autres ak doomu sénégalais yi aussi euh, nekk biir sénégal jeunes yi lan rek si pour sen seen avancement ak pour njariñu waa sénégal waaw li ma leen di dénk rek mooy ñu gën a góorgóorluwaat fas jom te xool nan collaborer ak état du sénégal pour ko Euh, état du Sénégal amna opportunité yu bari yu mëna a defal Modou Modou wala ki nga xamné sénégalais l'extérieur mais ki nek fi tamit amna lu bari lu mëna a def Sénégal parce que nit bu fekkente ne dafa nek ci réew ambassadeur la fa tay bu fekkee 1 million de sénégalais ñoo nek Paris ñoo nek France 1 million d'ambassadeur ñi ngi France même bu fekkee fayol leen ambassadeur wolé parce que tay italien bi. mënul jàpp ci Sénégal lu dul li ko doomi Sénégal yi fa nekk wanal boppam mu gis ko kon donc bu ñuy wax relation diplomatique dëgg sax maanaam mu nekk ci réew ma ñu dundandoo waa réew tey bu doon def ku ñu arrêté fii ci sàcc wala drogue ñu ne sénégalais la bu yàggee maanaam France ci boppam moom day jàpp ne sénégalais yi moom nii lañ mel yow man ngaa jóge Sénégal ñëw sax mu traité la traitement bu metti parce que dafa am sa mbokki sénégalais yu la fi mais bu fekkoon tamit ni ñu leen a remarqué ci jàngam ay ci jàng ay ci lu bëree bëree bëri donc. ak jub ak jub dañuy jàpp ne sénégalais nii la mel comprendre kon ambassadeur bi dëgg dëgg sax moom dafa am ay ay ay ay ay ay formulaire yu man rek mais ambassadeur dëgg moom ki jóge ci réew ñëw ci beneen réew di fa dund samp am fa jabar am fay doom nekk fa di dund kooku mooy ambassadeur donc kon ngeen xam ne ay ambassadeur ngeen ci réew mi. ngeen di bàyyi xel loolu te xool nan ngeen mën a collaborer ak état xam naa loolu dinañ ci ñëwaat ci beneen waxtaan pour bañ mu gudd beneen bi nga xam ne dinaa ko wax mooy bu leen toog fii parce que faru ñu ngi noo man génn naa ci kon fu gaa yi faru nañ bàyyi naa loolu kon mooy yow jox nga Macky Sall assemblée nationale ku wax loolu rek yow jox nga Macky Sall assemblée koo xam ne nag da nga yéene Sénégal defaru bi ngay xeex du am Sonko la du am Diomaye mais da xam Sénégal fan la toll fan la mën jëm. mu leer na ne ne boo ko tegee ci loxo ñoom jomaay dinañ ko liggéey loolu mu leer la li nga mën mooy nga xeex continuer da nga doon xeexee nga xam ne xeexaloo ay nit su fekkee gars yi dañu faru tamit nga bëgg a taxawal moo dégguma kenn gisuma leen loolu tamit il faut ñu bàyyi que fii kenn ku nekk bi ngay xeex du da ngaa xam Sonko moo tax nga doon da nga doon jot Sonko téléphone moo tax nga doon xeex du da nga xam jomaay moo tax doon xeex da nga ko doon jot téléphone moo tax nga koy xeex. kon bu ñu demee ba tey nga bëgg a wax ne moo jotuma diw gisuma diw donc xeexatuma day mel ne kon bi nga doon xeex da nga leen doon jot wala jot bi nga leen doon jot téléphone moo tax ngay xeex donc na nga xam ne kon projet bi noonu nga si duggee woon mooy yow du la woon su fekkee nag da nga doon xeex parce que dama bu bu nangam amee man dinaa am nangam kooku sa intérêt personnel kooku nag moom war naa mer parce que dafa am lu doon carte amu ko kooku war naa mer parce que moom daf doon xeex pour intérêt personnel war amul. li mu doon xeex amu si dara falu nañ dundam sensé wul kon na mer mais bu fekkee da nga doon xeex pour ñu taxawal Sénégal boo xamante ne day développé ñu teg Sénégal ci yoon te gisagoo lenn loo xam ne da wax ne lii kat li ñu doon xeex ak fi ñii jëm bokkul fekkee gisoo loolu nga taxaw di mer kon yow yaa trahi projet bi parce que yow dangaa wax ñu yi ne leen damaa ànd ak yéen pour ñu def lii gars yi gëm la ñu falu jëm foofu. nga ne noonu dëpp leen ngeen ñëw fii ci man gars yi ne noonu ñun contrat bi mooy noonu dañuy jëm sud quoi nga ne noonu léegi bàyyi leen ko ngeen jëm noor wala nga leen di xaar ci noor daal ñu ne la noonu ñun contrat bi mooy ñun ñëpp dañoo waxoon sud lañ jëm soo soo ci meree yow yaa trahir sa bopp su gars yi dëppee topp la pour yow nga am lu la neex ñoom dañoo trahir Sénégalais yi trahir ñu bee donc il faut ñu delloo si waat xel xam ne jàpp ma ne kenn am na jotu taxaw di xeex. pour bu gaa yi faloo man ma am lii wala laa comprendre yaakaar naa ni benn résultat rek lañuy ñuy xaar Ousmane Sonko mooy mu yaxanal alalu askan wi dugal ko ci farata dindi néew di doole dafa nekk ak ndóol gi fexe ba xale yi di liggéey inondation yeeg feebar yu métti yeeg hôpital yu baaxul yeeg tali yu bon yeeg yépp ak noot bi ñu tubaab yi noot lu ñu am ñu yóbbu ko loolu lañ bëggoon mu dindil ñu ko te yaakaar naa ni bi ñu falee président Diomaye ak léegi tànk yooyu la nekk kenn gisagul lenn luy wane ne kii li mu waxoon jëmul foofu kon ku ko mere rek yow xoolaata sa bopp xoolaata sa bopp ba xam yow dëgg-dëgg loolu moo taxoon ngay xeex waaw loolu daal laa am lu may dénk gaañ